ñu ngi ak euh, monsieur le secrétaire d'État chargé des Sénégalais de l'extérieur Moïse Sarr ñu ngi lay nuyu am mbégte lool dalal la ci matinalu Rewmi FM tey. madame kan maa ngi lay fay euh, di euh, di la gërëm di la sant ci invitation bi di nuyu aussi sa auditeurs yi ak auditrices yëpp ah di kontaan bu baax a baax ci teewaay bi ma teew fii tey pour waxtaan ak yow ci wàllu diaspora. ñun ñoo gën a bekk alors monsieur le secrétaire d'État euh, suba la Sénégal di matal ñeenti weer yoo xam ne mi ngi xeex ak mbas mi euh, di coronavirus wala Covid 19. alors euh, ci ñeenti weer yooyu nag état bu Sénégal jaaree na ci aussi dimbale ñi nga xam ne ñoom ñooy doomam yi nekk bitim réew yow ñu dénk la wàllu sénégalais de l'extérieur yooyu fan ngeen tollu ci ndimbal li nga xam ne nguur gi jagleel na leen ko xayma gi ñu nattoon ko ci 12 milliards di fukki milliards ak ñaar ci CFA. c'est vrai que boo xoolee ñeenti weer yu weesu moom yaakaar naa ne xeex bi métti woon na jeexagul ba léegi sax mais war nañ sant bu baax a baax euh, le peuple sénégalais sant également njiitu réew mi sant gouvernement bi yépp parce que boo xoolee bu mu egsee ba léegi am na ay jéego yu am doole lu am solo yoo xam ne président Macky Sall jël na ko pour fegu en même temps aussi pour xeex bu baax a baax euh, mbas mi décision yooyu nag am na loo xam ne jëm ci biir réew mi benn fàttewul benn secteur muy ménage yi muy entreprise yi muy l'école muy euh, santé muy aussi diaspora bi loolu aussi ñu koy rafetlu parce que boo xoolee lu mu def ci jaspora bi mën naa ne Afrique ba mu daj moom rek muy président Macky Sall moo jël xaalis bu toll ni douze milliards cinq cent millions jagleel ko waa jaspora loolu nag bu ko defee aussi xanaa ku ko xam xam fu mu jaar ak waa jaspora xam ne même moom balaa muy egsi ci nguur gi dafa waxoon ne bu ma jëlee nguur gi diaspora mooy sama quinzième région te nu mu dugge woon ci biir réew mi aussi dem ci gox goxaan yi aussi yaakaar naa ne ñun waa diaspora parce que maa ngi woon ci diaspora bi def na ay kilomètres ay kilomètres yoo xam ne def na ko ci biir diaspora bi def ko aussi jël ay train fanaan ci ay hôtel mais en même temps dugg ci ay pays yu bëri ci ay ville yu bëri ci biir diaspora bi donc bu ma egsee ba léegi ci nguur gi aussi da leen jël impliqué leen ci lu muy dox ci li muy def mooy ci waa assemblée nationale gis nañ ko député diaspora bi gis nañ aussi waa au conseil économique social et environnemental ci gouvernement bi ci direction yi ci consul ci consulat ci ambassade yi maanaam lu mu def daal xam naa fu mu teg diaspora xam na ko xam na aussi contribution bi diaspora def ci ci biir réew mi donc loolu moo taxoon mu ne ah lii dina ko def ci waa biir réew mi mais ñu nekk ci biti aussi nekk ay jambaar di teel a yeewu di guddee tëdd ah, bu ma koy def aussi du ma xooleen Afrique defuñ ko rek voilà pays yu bëri defuñ ko mais man dama koy def parce que dama ko gëm effectivement moo taxoon mu instruire suñu ministre muy ministre Amadou Ba ne ko dama bëgg ngeen proposer ma assez rapidement lu ñu naan un plan de contingence sectoriel ci plan de contingence sectoriel boobu mu jël douze milliards cinq cent millions jagleel ko waa diaspora léegi nag il fallait assez rapidement ci ndigalu Amadou Ba ministre Amadou Ba ñu xool nañu mën a def pour waa diaspora jot xaalis boobu ñoo xam ne diaspora boo waxee diaspora mooy adduna gi yëpp parce que ku dëkkul Sénégal rek même boo nekkee Gambie wala nga dëkk Mauritanie wala nga dëkk euh, Guinée Bissau wala Guinée yoo xam ñu gën a jege yaa ngi ci biir diaspora bi surtout ci phase boo xam ne phase confinement la maanaam dem bi ak dikk bi dafa dagg amatul donc mu fale aussi ñu xalaat euh, xalaat bu gaaw parce que lu mu waxoon rek mooy def leen pour euh, liggéey bi gaaw na set na leer te am cohérence donc loolu aussi ñu xalaat ne ah pour nga def ko nag il faut nga impliquer au plus haut niveau ñi ko représenté ci biir réew yooyu mooy ambassadeurs yi. donc moo taxoon on avait mis en place lu ñu naan un comité un mécanisme de gestion mécanisme de gestion boobu chaque juridiction dafa am ambassadeur moo koy jiite mu dugal ci consul général bi wala consul bi dugal ci aussi député diaspora bi ah ci département bi mu nekk muy opposition muy waa parti majorité bi. dugal ci aussi euh, kii yor wàllu euh, consul ak mooy ce qu'on appelle les affaires consulaires mais surtout dugal ci ñi bokk ci association yi walla ñi bokk ci daayira bi parce que loolu yëpp da nga koy def pour mu leer comme ça du am coow kenn du wax da nga jox kii dañu jox kee parce que nekkul xaalisu politique mais xaalis boo xam ne njiitu réew mi moo ko jël pour dimbale ñoo xam ne ñoo ngi ci biir diaspora bi te xaw a sonn walla Euh, mbas mi sonal leen bu baax a baax. malgré loolu yëpp nag ay coow amoon na quand même. ma xam nga coow moom looy def ci àdduna mën naa wax ne te amul coow sax mën naa ah mën nga xool est que baax na wala baaxul parce que humanité kii moom euh, euh, pour amul fenn amul fenn donc je pense que yonent yoo xam ne ah ku ne xam na seen taxawaay ci àdduna ñoo xam ne aussi ñun ñëpp ñoom rek la ñu yaakaar gis nañ ne bu ñu fi nekkee sax. am na ñoo xam ne ñu jógoon ni gëmuñ leen wala ainsi de suite mais lii am solo mooy est-ce que li ngay def baax na est-ce que li ngay def euh, jàg koy teg ci yoon wala déet moo tax euh, loolu yëpp bu ñu koy def xam nga bu ñu waxee inscription plateforme boobu kooku machine la ku ci inscrire di nga xam ne man lii inscrire naa ci lii mooy sama numéro te mën naa ko wane fu nekk moo taxoon aussi ñu nekk comme diaspora bi bari nañ il faut ñu xool ñoo xam ne ñoo ko gën a yelool ci ko yelal noonu nag am na ñu bëri ñoo xam ne ñu tukki woon mbas mi bett leen ñu nekk ci réew yoo xam ne dëkkuñ fa ñu nekkoon ci ay hôtel ñu nekkoon sax ci ay aéroport te bu ñu tëjee parce que dafa bu muy ñëw tagul kenn bu ñu tëj aéroport yooyu wala bu ñu tëj réew yooyu ah en terme de frontière ñoom ñoo ngi woon ci biir donc il fallait aussi ñu xalaat ñooñu ne leen ah ñooñu moom ñooy priorité mooy ñi tukki ñu bloqué ci dëkk boo xam ne du seen dëkk mais ñeneen ñi aussi mooy ñoo xam ne ñoo feebar ci mbas mi ñeneen ñi aussi ñoo famille yoo xam ne am nañ ci koo xam ne dafa gaañu ci mbas mi wala sax nekkul ci mbas mi mais dafa nekk si situation boo xam ne frontière yëpp dañ ko tëjoon donc pour nga rapatrier doo am sax fooy jaar donc ñooñu aussi mu xalaat euh, mu xalaat leen boo nekkoon Europe da doon yëkkati un million trois cent mille francs CFA ñu jox la ko boo nekkee Amérique wala Asie ñu jël un million deux cent mille jox ko famille bi bu dee yaa ngi Afrique aussi ñu jël cinquante mille francs CFA jox ko famille bi la bloqué woon aussi mën nga am cinq cent 500 euros 500 euros boo ko xaymaa mu ngi nekk ay trois 330 000 ah wala 3 non 300 peut être mille 000 340 000 ñu jox leen ko boo nekkee Europe boo nekkee Amérique aussi nga am 500 dollars boo nekkee Afrique effectivement nga am 300 300 300 euros donc loolu yëpp bu ko defee nekk mu nekk lu am solo beneen bi bu muy engagé la la deuxième phase boo xam ne montant bi rek mu ngi tollu ci 5 euh, milliards. deux cent quatre-vingt-quinze millions six cent onze mille cinq cent soixante-dix francs CFA te mu permettre ko mu jël wax na ko ci euh, euh, adresse à la nation bu altinique bi rek man permettre na ko ñu jël en charge plus de soixante mille sénégalais yoo xam ñoo ngi ci biir diaspora bi parce que première phase d'urgence bi rek permettre woon ministère bi ñu jël gouvernement bi ñu jël en charge 1358 personnes donc loolu aussi ñu ne ah pour mu gën a leer rek dafa am ñoo xam ne boo ci nekkee nga bindu ba am sa numéro vraiment war nga mën a jot ci xaalis boobu moo tax euh, ñu listé woon ñu nekk ñu nekk euh, ci réew yu mag yi mooy Europe muy Amérique muy Afrique aussi ñoom il faut nga nekk retraité par exemple bu nekk surtout bu nekkee Europe ak Amérique ak Asie ñu ne aussi am na étudiants yoo xam ne amuñ bourse amuñ aide du gouvernement du Sénégal te doon def ay liggéey yu sew lu qu'on appelle ay petit boulot ah ay liggéey yu ndaw yoo xam ne débat déb la wala yoo xam ne vraiment da ngay rek pour yor sa yor sa bopp bañ a di laaj ci xaalis vraiment ci sa parents yi nekk Sénégal ñu aussi dañ ci bokkoon bu baax a baax mais aussi jël ñoo xam ne ay marchands ambulants lañ. ah am na ñoo xam ne am nañ kayit am ñoo xam ne amuñ kayit nekk ci dëkku taax yi yoo xam ne vraiment yu métti la donc euh, te ñooñu sax am na aide boo xam ne réew yu mag yi dañ ko doon joxe même étranger yi pour ñu jox la ko aussi souvent il fallait nga am carte de séjour wala nga nekk situation bu régulière donc loolu aussi ñu xalaat ñooñu xam ne am na ñoo xam ne peut-être ñi ma dem ñaan jëli ko parce que peut-être seen situation permettre leen mais loolu état Sénégal war na mën a taxaw. vraiment dimbaleen bu baax a baax te ñoom aussi ñoo ngi koy rafetlu vraiment rafetlu ñu ko baax a moo tax rek critique bu ci jóg rek ah nañu xool saytu mais boo xoolee ba ci biir peut-être politicien lay doon rek mais te politicien sax loolu aussi vraiment war na ko wax ñu bëri jàpp nañ ci bu baax a baax parce que nag mbas mi aussi woo tax na ñu gis ne am na solidarité bu am doole ci suñu compatriotes nag bitim réew loolu moom vraiment gis nañ ko ay association yi daara yi même les politiques même ñu nekk opposition ñoo xam ne sax au début dañu wax ne kam est-ce que diaspora bi soxla na ko dem nañ bi gis ni diaspora bi nag vraiment sol na ko bu baax a baax parce que lotoon na sonoon na te li njiitu réew mi jëloon comme décision décision bu baax a baax la alors ñu bëri nag ñu ngi doon euh, wax ni xëy na séddale gi leerul euh, jaarul yoon am na sax loo xam ne wax ma ko sànq ñu ngi doon dégg ay détournement de fonds par ci par là alors séddale gi ak tànneef gi ak euh, koppar yi ñuy dégg ne aw na fii aw na fee lan moo ci am dëgg-dëgg monsieur le secrétaire d'État. man de li ma la wax mooy mooy séddale moom jaar yoon la def loolu moom mën naa ko séddee parce que nag comme ni ma ko waxee rek ku ins bu nañ jox koo xam ne inscrire fu mënta nekk boo inscrire également aussi li ñuy wax am nga ay papiers yoo xam mu ngi war a joxe bu ko defee nee naan ñiy joxe nekkuñ ci parti nekkuñ administration kese ñëpp kuréel bi ñëpp ci nekk nee naa la député opposition diaspora ma nga ci biir député majorité ma nga ci biir nee naa la responsable daayira wala association ña ci biir nee naa la boo defee virement aussi da am ay traces te ki nga ko jox di nga xam ne kii laa ko jox après nga rendre compte aussi au niveau du ministère parce que ñun aussi fi lañ toggoon mais effectivement dañuy xool di gëstu ku am critique boo xam yaa ngi koy def aussi loolu am solo la parce que ñoo ngi lay déglu boo xoolee ci plateforme bi sax dañu ci def benn phase euh, benn formulaire boo xam ne nekk formulaire d'évaluation koo xam ne li nga bëgg def recours wala enquête satisfaction est-ce que kontaan nga ci wala ah est-ce que jaar na yoon yaakaar nañ jaar na yoon mais loo gis rek effectivement mën nañ ko gën a ah, à la limite euh, améliorer loolu aussi mooy liggéeyu doomu adama mais li wër ba wóor amul critique boo xam ne critique objective la wala critique boo xam ne mun na mettre en cause remettre en cause liggéey bu mucc ayib boo xam ne suñu ambassadeurs yi suñu comité de gestion yi nag bitim réew def nañ ko mais profiter aussi pour jaajëfal leen bu baax a baax ne leen aussi troisième phase baa ngi ñëw ni ko liggéeyee rek. ci première phase d'urgence bi ak ci deuxième phase bi ñoom ñëpp ñu man ko noonu parce que aussi li ci am solo mooy dina am bilan dina am compte rendu te loolu aussi je pense que ñun xaaruñu sax ba mu jeex parce que chaque semaine euh, dañu doon laaj leen ñu effectivement envoyé seen euh, compte rendu yi te gis nañ ne temps yëpp aussi ñoo ngi def euh, bilan deuxième phase bi ministre Amadou Ba def na ko ci benn télévision président euh, président Macky Sall aussi ci adresse à la nation ñëwaat na de manière su mais de manière très claire ci bilan à mi parcours boobu donc loolu moom na ñëpp xam ko ñun ñëpp ñu mën a góor góorlu en tout cas pour mu jaar yoon jaar na yoon ba fii mën nañ ko continuer noonu te lu ñu wax rek mu ne critique ñu déglu ko bu dee loo xam ne lu objectif la ñu jël ko en charge bu dee loo xam ne nag vraiment waxu kasaw kasaw wala waxu politique la ñu xam ne aussi loolu mënul manqué mais bu ñu détourné te suñu objectif mooy dimbale assisté suñu compatriotes yoo xam ne ñoo ngi ci biti maanaam ñoo ngi bitim réew te boo xoolee ñi inscrit ci plateforme bi rek ñoo ngi toll ci deux cent mille sénégalais ñu nekk ci biir diaspora bi te ñoo ngiy dund aussi ci cent quarante deux pays nga xam ne diaspora bi kat riche na. am na pays yoo xam ne dangay xaw yaakaar ne sax est-ce que fii amoon ay sénégalais hmm. te gis nañ effectivement am na ay sénégalais ñu fa nekk. justement euh, monsieur le ne Sénégal yàgg na ko jànkonteel muy xam ñaata doomi Sénégal ñoo nekk bitim réew maanaam recensé leen recensement boobu ay at a ngi di ko wax mënta sotti ndax yaakaar nga ne mbas mi occasion la pour loolu mën a antu ndax njariñ lay doon aussi bien ci Sénégal mais surtout sénégalais yooyu nga xam ne ñoo nekk bitim réew. mais njariñ bu am solo sax parce que dëkk moom. lu ñu naan statistique dafa am solo comme ni ñu ko mënee a nattee ci biir réew mi dañ ko war a def noonu aussi ci biir diaspora bi comme sa ambassadeur bu nekk consul général bu nekk xam ne ci sama juridiction kat am na ñaata sénégalais ñoo fi dëkk lii mooy seen adresse wala fii ak fii la ñu dëkk loolu dafa am lu am solo c'est vrai que boo xoolee mbas bi mu ñëwee question yooyu dañ ko doon agité ñu ne sénégalais ñaata lañ ku nekk rek day dem. ñu ne ko ah 2 millions lañ ñu ne ko 2 millions 500 ñu ne environ 3 millions mais amul benn amul benn fichier au niveau national bu mën a ne bu mën a wone ne sénégalais ci biir diaspora bi kat nii lañ toll. mais léegi nag boo ko xayma effectivement mën nga am estimation boo xam ne elle est plus ou moins réaliste environ 3 millions de sénégalais parce que loolu si li ko waral mën naa ko expliquer parce que immigration dafa day waar boo ko xamul rek ah loo ci wax. dañ ci xaw a maandu tuuti parce que am na ñoo xam ne dañ dem sax ba di ne dëkkatuma Sénégal wala réfugié tel dëkk la pour am ay kayit yeneen dëkk am na ñoo xam ne aussi dañu dem ba xaw a renoncer sax parce que am na dëkk yoo xam ne am double nationalité da ngay renoncer sa nationalité sénégalaise pour mën ko am nationalité am na ñoo xam ne aussi muy dëkk yu bëri boo laajeen ñaata Sénégalais ñoo fi nekk mais ñoom bu ñu lay jox duñ la jox ce qu'on appelle les binationaux maanaam ñi am ñaari nationalité ma jël dëkk pour mel ni France am na ay sénégalais yu bëri yoo xam ñoo ngi France mais dañu am nationalité française mais boo laajoon tey gouvernement français ñaata sénégalais ñoo fi nekk mais dañuy jox fichier sénégalais yi am carte de séjour wala ñoo ànd ak ay résidents mais jox sénégalais yoo am nationalité française parce que ñooñu da leen considéré comme ay français. donc ñoom ñu cause leen comme ay français ñun Sénégal aussi ñu cause leen comme ay comme donc xam nga loolu day nekk beneen bi aussi am na ñoo xam ne malheureusement amaguñu carte de maanaam ñoo nga fa mais amuñ kayit li gars yi naan amuñ kayit xam nga yooyu aussi booy lim mënoo leen lim ah, am na jëloon di gaal wala ñoo xam ñoo ngi ci biir réew mi donc loolu mooy indi jafe-jafe yi mais bu ñu defee plateforme gis nañ effectivement vraiment am na kóolute boo xam ne amoon na ci boo xam ne yu bëri inscrit nañ parce que boo xoolee ñu inscrit nag am na solo maa ngi rappelé rek ñi inscrit ñoo ëpp fuuf Sénégal nekk ci biir diaspora bi yëpp ñu voté ci élection présidentielle bu 2019 donc kon mën nañ ko jàppee début recensement. début recensement bu am solo la. bu réussite la en un mois douze jours ñu am loolu. ne aussi ku ci inscrire yaa ngi dëkk ci cent quarante deux pays loolu yaakaar naa lu am solo la donc ñun aussi ñun waa secrétariat d' état chargé des Sénégalais de l'extérieur nekk ci ministère affaires étrangères et sénégalais sëriñ bu Amadou Ba jiite dafa bokk ci suñu priorité yi mooy ci suñu plan d' action aller vers un recensement de cette diaspora mais recensement boobu yu mel ni lañ ko mën a defee ku ne inscrire boppam. Mhm. après nag bu ñu ko consolider ak fichier yu ñu am muy fichier élection bi muy fichier carte consulaire yi mhm. muy fichier aussi réew yi mën a jox sénégalais bu ñu ko defee rek croiser tous ces fichiers là yaakaar naa ne dañ mën a dem ci bénéfice boo xam ne ah dina gën a am solo. te dina mën a permettre aussi njiitu réew mi pour mu mën a réorienter les politiques pour la diaspora parce que nag dina fekk ñu xam ne am nañ ay ingénieurs ñoo xam ñoo ko ci dal domaine am nañ ay juristes ñoo xam ñoo ko ci dal domaine am nañ ay mathématiciens wala ay corps yu bëri yoo xam ne ku nekk mu ngi évoluer ci ay domaines yu am solo parce que ku wax diaspora bi nag xam ne effectivement elle est riche elle est variée, elle est pétrie également de talents et de compétences et d'expertise. jërëjëf monsieur le secrétaire d'État Moïse Sarr euh, nga yor sénégalais de l'extérieur amoon nañu mbégte lool dalal euh, ci matinalu réew mi tey xam naa ne am na yeneen yu bari yoo xam ne bëgg nañu ko wax wala mënoon nañu ko wax mais yoon yemul ci benn dinañu am incha allah xëy na beneen jotaay bu gën a yaatu bu ko defee ñëw ak sénégalais yi ci li nga xam ni euh, soxal na ñëpp ndax bitim réew moom ku fa amul mag am nga fa rakk wala nga am fa mbokk wala xarit donc wax dëgg yàlla intéressé na ñëpp gërëm nañu sensibilité bi ak euh, dalal gi nga xam ne dalal nañ la ko tey ci matinal bi. maa ngi lay euh, gërëm bu baax a baax ci opportunité bi ma jox également xanaa fi may jeexal rek mooy euh, wax leen aussi que troisième fase bi jot nañ xaalis bi muy 6 milliards 250 millions tàmbali nañ liggéey bi aussi depuis Altening bi. te am na instruction bu am solo boo xam ne jiitu réew bi jël na ko aussi jox ko Amadou Ba mu répercuté ñu ko muy diaspora bi nekk Afrique yëpp. ñi inscrit ci plateforme bi ñoo ngi tudd ñoo ngi tollu ci cent six mille personnes cent six mille personnes mais président lu mu wax mooy ku ci inscrit rek jox leen ko cinquante mille parce que nag dañu fàtte ne quatre vingt pour cent de la diaspora sénégalaise nekkul Europe nekkul Amérique nekkul Asie mu ci biir Afrique te gis nañ ni aussi réew yooyu yi ma tudd léegi am na ay koppar yu am solo yoo xam ne dañ ko jël dimbale ko seen. citoyens yi mais également ay étrangers yoo xam ne ñoo ngay dund foofu am ay kayit mais fii Afrique amu fa donc loolu moo tax aussi mu jël ndogal boobu mu nekk loo xam ne ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax di ko gërëm bu baax a baax di gërëm ñëpp di sant ñëpp. jërëjëf monsieur le secrétaire d'État chargé des Sénégalais de l'extérieur Moïse Sarr ñun tam amoon nañu mbégte lool dalal la ci matinalu mi FM jërëjëf.